asalaamaaleykum àdduna warngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di nu ñaanal dem mbégte ak kontante ci ànd benn ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñ mbégte jëmm seen nopp suñ bànneexu làmmiñ seen taaxirlu waral suñ farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ leen ci séntu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal ñëw ci koo xam ne que biñ ko fi jëlee tegtal yàggul noonu mais li waral ñu indiwaat ko ndax dañ koo jël xumbaay bi mbumbaay bi ku ne wax ndax lan tegtal bi mu def bàyyi na tras ndax képp kuy seetkat gis nga ci sa bopp kuy seet te man gis nga ci sa bopp kuy seet te mënoo gis nga sa bopp ku doon bañ a feeñ di xaar ndigal gis nga ci sa bopp ndax émission bi yëngal na àddina àddina ñoo koy coow kooko di kan ma indiwaat ko mu ajati niveau bi ba mu gën a kawe yëkkati kooku ba mu gën a di kawe nga xam ne que cité Asegna cité bu calme la woon mais cité bu jaxasoo la léegi ndax lan kuy ñëw laajte baa ngi bari dugg bi génn bi yëpp soxna xayta sekk mu sëñ baara la ni see borom léegi léegi soxna xayta sekk yaa ngi ci Tektal TV sa tele ci émission tegtal àdduna wërngal këpp fu ne ñu woowee la fa ba xàmmeetoo indicatif yi nga ne nag lii ëpp na mais baa dégg ko àttanam déet yàlla na gën a kii te ba léegi ba léegi may wax ak yéen na déggaguma koy kalaame bu ñuy kalaame nag moo xam ne ñaanu ma yàlla dégg sox kuy kalaame kuy sant rek laa bëgg di kont di gis Soxna Xayta Seck yaa ngi ci Tektal TV sa télé ak émission Tektal loolu noonu ngi lay seetaan. maa ngi nuyu waa Tektal TV di wax ngeen dara jàmm wax kontaan naa ci yéen. Hmm. bisimilah. kon daal xam nga ne Tektal daal nii la mel ne doole ji macha allah. waaw macha allah moom Tektal TV. waaw jëm daal ak euh, lu ñor tàmbee ak lu ñu gësam bokkuñu ngeen xam loolu bu baax a baax. domaine bii nee naa leen faale wuñ ci France 24 faale wuñ ci BBC faale wuñ ci euh, télé yi gën a mag ci àddina bi domaine bii dañ koo miine teel suñu bopp ba mu dëgër këcc bu ni nelaw sax mën nañ koy def bu ni nelaw ñeneen ñi yow mënuñu yem bokkuñu ñun duñ titre titre bu garaaw bu dul dëgg duñ busse duñ wax lu dul dëgg duñ ànd ak ci ku dul dëgg duñ jaayaate duñ xeexaate ku koy def ci yoon nag ñu continuer dem leen sëriñ bu dul résultat nag télé yi bi boo ko wëree doo dem boo ñëwee ci man doo dem nga dem faneen doo dem nga boole ma ñëpp doo dem lépp solo mooy ki am jàngoroom mu wér ki am soxlaam mu faju wala bu fajuwul tamit li ngeen waxante daal en tout cas nga respecté ko te sëriñ si ngir yàlla bàyyi leen lenn avant ngay encaissé yomba jot lool baax lool neex deret lool di rappeler ku la woon mais boo xasee encaissé rek commencé di am numéro yooyu filtre yooyu yëpp day ëpp nit ki. da ngay def loo man wax loo man tëdd nelaw bëgguma ku ñëw ci télé bi nag mel la gaynde del ñëw sa kër waa wàññi engagement yi déedéet bëgguma ku bëgg a bàyyi lépp yàlla nag nan yàlla la te yaay encaissé déedéet affaire yi da ngay def muy man lii mu leer na loo man la nga def ko mu jàll numéro soxna Xayta sekk kon ma jox la ko balaa waxtaan bi sol sori ñu dugg ci biir xam naa sax jàpp ngeen ko këru ngeen ko parce que mais xaaral ma joxaat leen ko defal 77 774 euh, 47 77 774 03 47 beneen bi 77 455 00 17 00 nag 00 la pour ku déggu daaj 77 455 00 17 soxna xayta sekk mu sëriñ baara borom léegi léegi nii moo nekk nii ci tegtal nga fekk ko site aseng naa derkle Derklé nag bu siiwul mooy boo jógee jëppal ñëw ba Derklé booy dem station xaar kër gi sa droite lay féete boo jógee station xaar yàlla jëm Dakar kër gi sa gauche lay fekk bu fébéete di nga gis euh, moo jàkkaarloog pharmacie Pierrot ci Derklé soxna xayta sekk min xamul ci moom benn sikk ba fii ñuy waxe nii mu sëñ baar soxna xayta sekk yaa ngi ci Tektal TV soxna xayta sekk euh, léegi li bëgg a ñëwaat am na ñu bëri ñoo xam ne que ñu ngi wax ci seeraay soxna Xayta Seck seeraay ma ne leen lii waxoon naa leen ko ca début ba dama ko cee fekk mënuma ci dara nii lay liggéeyee nee na daal ku mat dimbali dina la dimbali ku ne nag lim man lii la moom loo ci waxaat balaa ñu continuer seeraay <laughs> ah, lu baax moom du yomb. lu baax du yomb. lu baax moom du yomb waaye ñi ngi fi tamit pour ñëpp. yaa ngi fi ñëpp daal waaw. yow daal ku a dimbali di nga ko dimbali ku. ku war a dimbali di ngeen ko dimbali l'essentiel daal xaalis duñu boole kenn. Mm. mais lu yomb baaxul. mais sa secrétaire yi li nga leen yan na de sonn nan de <laughs> <laughs> noonu la yokkute rek. yokkute rek yokkute rek. ah di leen wax tamit ngeen bàyyi xel leen émission day am man maa wax ne képp ko am loo bëgg a laaj bind ko ci commentaire yi suuf da ngay abonné Tektal TV T E K T A L def espace def TV beneen nga def te te E T K T A L bul def espace defal TV ba pare. nga def espace Sénégal tegtal TV simple tegtal TV Sénégal nga abonné bés rouge bi bés cloche bi émission yëpp di la fekk nga xam ne ñun yamuñoo ñenn ñi ñun qualité la soxla ak dëgg ak teg ko ci yoon am na sëriñ soos doo leen mas a gis Tektal ndax lan xalaatul ko am na sëriñ soos doon nga leen gis Tektal dootoo leen fi gis ndax lan Tektal dafa am nu muy dundee ku nu nar a fatt nag ci kalaame bu bari sa émission dañ ko dul gisati sax suñ responsabilité wàññeeku carrément loolu moom duñ ko nangooti sëriñ buy ñëw di teg nit ñi ay kéeg yu mel noonu non nit dañu bëgg ko respecté jaam ñi teg mbir yi ci yoon daal noonu la ñuy demee kon bind leen commentaire di leen wax tamit commentaire am na ci ñoo xam ne que dañuy bind lu ñaaw ndax la mën nañ doon ku concurrence sëriñ bi wala <laughs> concurrence Tektal TV di wax lu ñaaw kon commentaire duma ma ci baasewu beneen bi am nañu commentaire yu neex ci nit te léeg-léeg commentaire yi du dëkk moo tax man lu ñaaw bëgguma ko lu ma gisee gisati lu ñaaw nag ñu éliminer ko mu jeex benn yoon sax wala sax dootu fa nekk kon ku am laaj booy laaj ci teggin nga laaj ko buñ ko buñ ko gisee ñu jot ñu ko bu ñu def émission ñu laaj ko parce que mënuñu wax soxla yëpp am na ñu may laaj la bay laaj ku dër loo ko mën. <laughs> ku dër. waaw ah amoo ci ci xam-xam. déedéet. Hmm. am ñuy laaj ba ne seen nopp yi mel na am lu ci dugg tëleen nopp yi. lu ci dugg comme nan. am lu dugg ci nopp bi rek lëjël leen daal ñu koy wéyal. ah dafa bari façon xam nga moom fu mu toll nii nag. Hmm. nee naa la kenn daa weratul kenn wératul am na ñoo xam dañoo wératul nag seen i jàngoro hmm. am na ñoo xam ne dañoo wératul si la pexe doomu aadama. mais lu ànd ak pexe doomu aadama moom. Hmm. bàyyiwul fenn ci yaram. lu la ci def rek boo ñëwee am nañ saafaraam. am nga saafara jërëjëf dégg ngeen ko kon soxna Xayta Seck am na koo xam te mi ngi bind ci commentaire yi ne am jabar moo ko të xaw ma dafa amul xaalis xam dafa ñàkk bay rek xam nga luy problème mbind na ko ci commentaire. ah bu dee nag moom ñaar ko téye mu am wàllum rab ba daa amul sens daje ki mu bëgg bu ñëwee jàppale ko ci bu ñàkkee xaalis nag moom. <laughs> na liggéey rek xanaa liggéey yërëm la may la jabar moom est-ce bari na ku ci xam benn ñu wax ma ku yërëm may ko jabar loolu bariwul. bariwul de bariwul de dégg nga ah, di leen wax oyof lu baax na wàcc sa bopp lu baax na am na jigéen ñooñu ñàkk nañ seen borom kër bëgg ci jotaat fu ne ñu ngi fay dugg di ñaanlu dama yaakaar ne bu ñu seen téléphone woo oyof baalu jégul tem jàmmam am na jigéen ñoo xam ne que ñàkk nañ seen borom kër fu ne ñu ngi fay dugg di ñaanlu dama jàpp ne ci saayir bu ñu oyofoon tuuti wàcce seen bopp baax na jàmmam parce que nit ki koo man di doon nag ku judd di liir bi maa ko taalif ku judd di liir bi ku dee di néew bi ku la laal raxasu mbaa boobu mu faxasu yàlla moo am valeur nit ñi na ni oyof te xam ne àddina moom waay la rek nit ki munoo fexe ba boo nelawee fàtte lu xew boo gaañoo yëg mittit kon nit kese nga ngay oyof daal di maslaa doon taalibe lu la waaye di jaay lu dul taalibe rek nga bàyyi ko fa parce que bu la nit ki ne damaa bon nga ko jaay maa la gën a bon bon a ciy gagné ban baax perte amul sens da oyof dugg ci seen mbir bu baax a baax soxna Xadi Sekk wàllum kii nag lañ bëgg a ñëw nag kort nit ñu soxor ci dëkk bi kon korte lan mooy korte ak nan lay manifester ba nga xam ne lii korte la. ah ñi ni korte de bu ñu fi ñëwee. Hmm. da leen di bàyyi. da leen di waaw. mun nañ kaa fay xamul ne korte ko nag signe nan ko korte signe nu mu mel. waaw ku ñu korte xamul ne danga bu ñëwee fi ñu xamal ko dañ kaa korte. mais signe korte pour boo doon xam ne ah moom mii lii ko dal. nga dèjà mun na signe korte duñ lay sànni la. lay sànni mun na nekk sa tànk mun na nekk sa loxo mais toute façon day xasan. day xasan day xasan. Ah, parce que day dox. ñuy wàcc da mooy avantage tamit ko korte yëpp day am. xam nga am na ñi am taab na korte te du korte moo tax dama ne la feebar mënuñu cee jugé tant que ñëwoo ñu xam ne la daal mais korte dañ koy faj. léegi ko yow comme da ngaa a seet ku nekk bitim réew te ñëwul nag nooy xam ne li ko dal. ay xaajawul mu ñëw. aajawul mu ñëw ah ku ñu seetee gis dina ci yow. Hmm. aajawul ngay ñëw de. ñëw eh. sangu si moom ñëw jël si garab loolu amatul fii de. boola boog ba xayta ñëwee boog la amatul. waaw ah, xayta daal noppal na lépp. noppal na lépp foofu ngay nekk ñu seetal la. Ah. foofu ngay nekk ñu yónnee la say bagage yónnee la say bagage jaana kon soxna xayta sekk mu sëñ baara nee na képp kon kort wala ñu liggéey la xeet yooyu mën na ci dara. mën naa ci dara bu baax a baax te ngi ciy sant yàlla bu baax. Mm-hmm. beneen mbir nag soxna xayta sekk mooy du liggéey mais nit ñi kenn ku ne da ngay dégg. mu naan nooy def ak noon yi jigéen ñu bëri am na noon yoo xam ne que ba temps koo ku gis nañ ci internet bi kenn ku jigéen ko amoon ci liggéeyam benn xeetu yokkute rek keneen que munu koo muñ sax rey ko mu dee benn yoon muy tas ci maanaam xeetu soxor bi nga xam moo am Afrique xam nga capable nañ def la lu ne nag xeet boobu ku bëgg a mucc ci noon yi du duñ la mënal dara ci saayir ci parce que noon yi tamit léeg-léeg mënuñu ci saayir bi ñu dem mënuñu ci baatin bi dara ñu dem di yàq la ci ci kii yàq sa der ci am na nag. Hmm. parce que nit moom Sénégal bi ñu nekk dañuy gis kuy dem ñu ne du dem. ñu liggéey la yàqal la. Hmm. am na ñoo xam ne ñooy sàq seen bopp noonu. Ah. mais ku bëgg avancé hmm. nekk ci jàmm bëgg a mucc ci noon yi. boo fi ñëwee dinaa la si jàppale ba nga mucc si pexe noonu. pexe noonu kon daal ku bëgg noonu bañ ko mënal dara daal mën nga ci dara. waaw mën naa ci dara bu baax a baax a baax. ay noonu lu ci ëpp sens. xam nga noonu day yokk jom nag waaye daa bari fas noon yee bari mm. am na noon boo xam da lay xool rek di mer bañ la mm. na noon boo xam da lay xool bañ la jug jëm ci yow pexe pour yàqal la mm. boobu daa gën a bon nag boo jugee nag ci sa bopp nag ba aar sa bopp noon du mun ci yow dara nii rek la lay xoolee parce que noonu yi ay degré am na ñii dañuy xool iñaan bàyyi noonu ñii wax ci ginnaaw bàyyi noonu ñi wax tuuti. noon bi lay jug nag bañ la ba de di la yàqal booboo gën a bon te léegi noon sax nag nit ñi dañ ko xàmmeetul na ki nga gën a jëflanteel bay ree mii ree ko koy sa noon waaw loolay problème la nekk. moo tax léegi nag ku ci bëgg a rek ñëwal ci xayta mu aar la ginnaaw yàlla. Hmm. nga mun a mucc ci ay pexeeg noonu. parce que hmm. fu mu toll nii moom ñi lay gën a ree ñooy sa noon ba ñu weex na waaye deret a ko lal. Hmm. nit ñi tamit nan bàyyi leen naan di la sonal ay noon di la sonal. ba nga naan noon yi fu ma jëm ñoom te fekk yow ci sa bopp am na ñeneen ñu yàlla teral tamit nga teg leen bët di leen noonoo boobaa tamit li nga leble fii ngay amaat fële rek Afrique la nekk mais nit ki lu ci man di doon gëm yàlla gu mat sëkk ku ko yor jàmm nga gëm leen yàlla bu fi nekk naan kii maa ma ma doon jàngandoo kii maa ko mag kii ñoom maase kii fii la doon taxaw xeet yooyu ay ay deuxième la quoi yàlla noppi na boo gëmee yàlla rek leneen day ñëw te xam ne àdduna bi moom mooy loolu quoi Soxna Xadi Sekk kon ku bëgg a mucc ci noonu man nga ci dara ku bëgg benn ak bu saf sàpp nag koo xam ne que ñim xamagul ak yëpp xeetu cet ak yëpp da ci mucc. ñu ngi ci de ñu ngi ci bu baax a baax de aar nit ñi. Ah, cat mën nga ci dara mën nga koo dara. bu baax musu si cat ak làmmiñ. Hmm. chaque jour maa ngi koy liggéey lu baree bari. Hmm. mën naa ko ci nitu guddi la ak maa ay si ñooñu xam nañ ma ah. sax. Ah. moo la fu ma dëkk ñu fekk ma pour yëkkati ma fa. ah mën naa ci ñoom bu baax a baax a baax fu ma nee ñu jaar feneen. Ah, da nga leen di bu baax a baax a baax a baax. ah kon nit ku guddi am nañu d'accord ne amul la am ñuy wax amul bokk. daa fekk jàpp la baa nga doon ko mais nit guddi. Hmm. am na bu baax. en tout cas daal am na de affaire la nekk de lu am na. am na hmm. bu ñu reeree du ñu tëdd de. Hmm. fu ñu dugg. <laughs> ci mi. mais kon di leen wax ne muy Dakar surtout nga xam ne dox daje baa ngi fi muy góor di jigéen ku ne nga gis ku ne dugg ci ngeen di teey bu baax a baax lu léegi fi de abo d'accord lu léegi fi de tey daal baax na kon tey moom baax na hmm. kon daal ñooñu moom ku bëgg ñu bañ a man ci ñoom dara nañ ñoo ci xayda cuuraay wala yor naa cuuraay bu baax a baax a baax a baax hmm, boo boo ko laalee rek ñoom boo ko laalee kay moom doot ñu jaar di foofu dootu jaar di foofu déedéet dégg nga ko fii moom li fi nekk dafa bari dafa li fi nekk moom macha allah bari na fëgguñu suñu dënn nag waxuñu nag ñeen kenn mënul mm. waaye ñun daal mm. xam na ni lii doomu aadamay soxla ñu ngi ci mm. nan yegg si rek ñu xool euh, ma ñëw ci mbirum jigéen ñi nag ay ñoom kis fibrom ah ay kis ak fibrom nag mbirum fee la mbirum fële la kayit yow waaw nañ fa dem rek ah, mënoo ci waaw mais bu dee wàllum ngelaw nag ngelaw mën naa ci dara am nañu seen biir yi day gonflé ban mel na ku toll diggante te dañ naan xaw lan la. fu mu dem duñ gis rab da koy def. rab da sa biir bi rëy nag ba nga jàpp ne dara dara dara mu jékki-jékki reesal ko rab da koy def. rab da koy def rab moom noo man de ku fi am rab moom boo ñëwee ma faj la. ba nga wér. nekk ci leneen. si rab que rab moom rab lii rab dafay dafay manipuler nit. si ñu rab moo bari. comme ban ak ban détail yi ñu xam. non si ñu rab dafa bari parce que nit ñi problème yi ni jàkkonteel lépp rab moo leen koy teg. nit hmm. dina nekk ci place am fa wërsëg lool sax jékki-jékki di naqari deret di fa am yaakaar bu tas di xabtalu ñu naan dañ ko liggéey fekk rab la am. soxna Xayda Seck kon daal rab moom li mu koy jiiñ bari mais si dëgg-dëgg kon parce que dina am ñu koy jiiñ ne rab euh, gént di sëy moom la jàpp date mariage yi mu delluwaat vaar moom la. di liggéey déposé ñu fàtte la moom la def di mel na koy soof nit ñu te defoo leen dara moom la di yaakaar muy tas moom la euh, maanaam lu ne daal jiñ nañ ko yooyu yëpp ci moom la bokk. ku jigéen bi aussi am rab. Hmm. pour nga am jëkkër du yomb. pour nga am ku la bëgg du yomb nag tout le temps xale jigéen yi xale jigéen yaa ngi fi mel ni leen ne amuñu jëkkër ku la ci gën a jekk fu mu toll ci réew mi nekkuñu di ay milliardaires. déedéet hmm. rab moom boo ko amee sëñ bi baa dina la ci loo bëggul. li nga gën a bëgg moom dala koy xañ hmm. mais rab am na ñu ne kenn ñàkk ko daal ñëpp am na. ah comme dañuy am yu bon yi moo bari xanaa moo ëpp <laughs> rab moom ki lay yàqal moom boo bu fekkee dafa dafa nekk naturel wala ñi ko am ñëpp wañ am na ñu nekk seen jàmm di. am na ñu yëgul rab rab gis nañ ne am na côté yu bari sax daf leen di arranger daf mel leen di xibaar luy ñëw sax dal ah. comme boog man gisaguma ñooñu faru rab daal ku ko am fajul góor bu ci am gelu rab faj ko doo am na yu bëri yi nga gis ci réew mii imagine toi naka ngay gisee góor nekk kilifa bu ne léng jur doom di ko sàkku rab da koy def de doo ànd ak sa xel li mu bëgg rek ngay def lool nag damay bañ a may saay-saay yi point daal parce que dëkk bi tamit am na lu ñu fi war a jële euh, nit def toj toj ba pare ñu ne wérul déggoo li ma la dama ne la waaw dama la ah. dëkk bi fii laa la wax mm. man mi faj maa la wax loolu bari na ñu bari déggoo li ma la wax saay-saay xam nga nit saay-saay yeggoo xanaa jël sa doom nekk ak moom mm. ku ndaw mu leer na ne lii boo ci bànneex bu ndaw bi boo ci paree moom nakar ngay deewee da koy def de waxuma nag tamit ñëpp mais rab daal mi ngi def loo ñu bari fii am na kilifa yu bari yi nekk ci réew mi rab da leen a sonal ñu waye di nax rab dugg ci dara di ko ci fekk rab moo leen koy def loo l'essentiel daal ku ci am rab na ko faj. te yow mën naa ko. ñaata fan. ah déedéet moom kii moo ko yor mais rab moom mën naa ko faj. xam nga yow tam prix yi ngay laaj dafa seer moom da nga war a jël engagement yu leer nañ ñu nag. déggoo ma wax de. Hmm. kii moo ko yor mais rab moom ku ko am ba dugg fii dinga nga wér. peng. incha allah te ñëwaat. bu ñëwaatee si leneen la ñu nekk mais doon doon rab bi. Hmm. jërëjëf kon numéro yaa ngi noonu ci écran bi ñuy bind bu baax bind bi leer na dijj na defe naa sa bët yi ba amul problème rek bind bi leer na bu baax a baax soxna Xayta Seck mu sëñ baaram moo nekk ci Tektal soxna Xayta Seck. yaa ngi ree da nga may ba léegi ci ci mën nga nekk ra ah bi béjjën bi lii luy njëriñam. di ma wéttali. di la wéttali ku fi nekk dafa am ñeneen ñu fi nekk. ah di ma wéttali yaa ma laaj li fi ne ma di ma wéttali. ñoom kenn la wala moom bu kese la. ah ñu ngi may wéttali daal. instant bi fii ma toog ñu ngi fi gars waaw waaw. yaa ngi leen di gis <laughs> man làmb dañ naa kenn wala dañu kenn. <laughs> xawoon na dañ nga kenn yow. de damay laaj yow kay yow. ah yow kay yaa dañ nga kenn. non non man bëti neen laa yor. daal li ma mooy. Mm-hmm. foo ne fu ma ne ña nga fa. ña nga fa bari nan fu ma ne ña nga fa. bari nan. fu ma nga fa. bari nan la. déggoo li ma lax de fa ma ne rek ña nga fa. ah kon instant bii wala loolu lan lan ñu nekk suñu rek. ay lan la. samay nit. Ah, ay nit lan. samay nit. say nit wala say. samay nit. lu la boo ngoyee fenn doo fa gaaw a jógee. parce que li may wax moo ne. moo ne léegi ndomba gi nag lu mu pour man la. pour yow la waaw. yow nii nga mel ni bu doon da ngay dem ci ay xeetu xew ay xeetu ay réception ay ngénte <laughs> ay mariage ndomba gi yëpp day dem wala du dem. su waree dem moom day dem. bu doon tey damaa waroon génn ni sentir ko nii nii ma nii nga ma fekkee nii. dama ciy demee nii. yow yére àddina yaa koy sol mbiru àddina bi ay ñoom ji ay ñoom yeneen kii yëg daal. xam nga loo gis tooluwaay la. ah weesu ko. ma sonal rek waaye xale laa de. xale na yoo xam dootoo ko mën. kon daal léegi yow ci wolof gi rek nga nekk. l'essentiel daal am na yoo xam mënatuma ko. mënatoo ko. âge bi dépassé wu ko de. mais tolluwaay la. tolluwaay la léegi boo bëggee am xaritu yu nekk ci loolu pare nooy di nekkee. comme nan. comme say xarit. am naa ko. xaritu kii dañuy jékki-jékki yéen yi jot leen dem leen tëddi ah, <laughs> a ngi léegi. seen sa bagage yi leen faagaagal kenn wala. xanaa dina defar waaye dina yàqar. Hmm. ñoom kenn musul rëcc gis ci gars yi. ANCAR. ah, ah. tiituñu. ah dégg tiit kay loo xamul. waaye du la rey. ah gis leen teeroon nii. Ah, ah kon nag ku lay gane si man de moom def émission ñu boole du ma la gane si laa <laughs> illallah man daal fi nekk nii bay ma ngeen ñaanal ma fi nekk nii man maa ngi tari samay suma am sala suma xulu doo waasin fi naasi bi laaj ji wa in yàkkaadu <laughs> suy na ala nasra fatiha fallaxi naasi lu ma xam maa koy tari yaa yoon nabi jaahidil kufaar wal munaafiqiina waxlus yaasin ba foofu laay bi lu ma man maa pour mucc ci yenn yi daal parce que ñun moom moom moom moom yaa gën a xam ngaay lan jàngi daara sëñ Modou Diop ca ngaay mexe seexu naa Diop alaaji bàcc Diop ñëpp nekk fa am na luy sax li sax boobu ak nen la ci lañ bokk ah jeex ak jàmm kon émission am na luy sam de xaw lan la xaaral ma gaaw bindal ñu ngi def émission de en direct Baye Mass tiit na nee na tekk xarmat nee na petit sow dina teg docteur moom di dugg Casamance ak fu ne min na àll beeg yooyu moom rawul moom da koy kii ah bi soxna xayta Seck soxna xayta Seck mu sëñ baara beneen maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir tegtal mooy daw defal 77 774 03 47 77 774 03 47 beneen bi 77 455 00 17 00 nag 00 la pour ku déggu déggul daaj 77 455 00 17 soxna xayta mu sëñ Baara nekk ci cité Asegna Derklé cité Asegna Derklé nag benn la ci àddina bi nga dugg fa fekk ko fi dis ko soxla lu ci mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp. biis boobu di jëm ñi ci wàcce kër soxna xayta la ne laajte taxi boobu kalaat klaxonné kër soxna xayta lay laajte pasero boobu noonu prado bi kër soxna xayta lay laajte mercedes boobu kër soxna xayta lay laajte kooku muuru ci mbedd bi kër soxna xayta lay laajte soxna xayta sekk mu sëñ baara jamono jii si di naa dafa calme woon mais yëngal na ko tàngal na ko ba kumbaay baay mumbaay bi bari fi ba waa cité bi duñ commencé toxul ak bàyyi la fi ndax xumbaay bi mumbaay bi loolu moo koy disee rek bi kay dañuy ah, bi la yokkute la waaw kon maa ngi gis lii lan la jàmbur la bagage fii moom waaw ay bagage xayta rek fi ne ba laal bi ma laal amul dansé ah ay bagage xayta daal fi ne déet waruma laal ah man na ñemee naa kaa laal yow boo ñemee rek laal kon bàyyi na man du ma tooñ man du ma tooñ moom du ma tooñ <laughs> samay mbir bopp daal moo ne fii samay bagage boobu yu bari nekk ci béjjën yenn yi am lu ruus am ci biir am béjjën yoo xam dara nekkul ci biir am xotti pétaaw ak yu ruus yi pétaaw yu ruus yi lee mel ne tamit jinjeer la lii wala du moom laalu ma de samay mbiru bopp daal moo nekk fii waaw lii luy njëriñ lii samay mbiru bopp la man lay bi ku ko jëloon jox la vingt millions yu teew ak vingt millions looy jël lii ma gën a lii moo la gën a yàlla kenn <laughs> ah un milliard lii moo ma gënal. moo lii lu njëriñ lii. lii ma gënal lépp nee naa la lu ma am si àdduna Serigne Touba moom ko gënal. sama métier bii nag duma ko foowee. petaaw bii hmm. nii petaaw yi. Hmm. dama cee fier. yaa roi de petaaw la. seetandoo ma kenn moom. fu mi tool. waaw déedéet. Eh, gën seetandoo kenn. déedéet. ñoom xam nañ loolu sax pour seet nii. c'est-à-dire seet est-ce que du. tooñ ñi ngay wax déedéet parce que man laa wax seetandoo ma ak kenn ku ne nag li nga mën xam nga ko yow. waaye man moom xam naa ni seet moom wax dëgg fa yàlla léegi xam nga feebar yi moo bari ba da ngay concentré wax waxu liggéey ku jug naan seetkat yi nag seetkat yi ngi fi dégg yëpp da ngay jékki-jékki ñu seet ba ci biir ne la bàyyi naa seet. ah loolu mi ngi am ah koo wax waxaat ko bu subaa nga waxaat ko même wax doo ko waxaat di man nag du ma ko ba tey du ma ko ba suba dinaa liggéey dinaa ñan dinaa faj saay bu nit ñee ma seetal la pour toujours nag incha allah. incha allah weddikat seet yi nag ñi weddi seet ñi xam gëmul. ah ñooñu xëy na dañoo amagul soxla rek. dañoo amagul waaye bu ñu amee soxla ba jàkkaaloo xayta est-ce que am na ñuy weddi. Mm-hmm. ah. ah yi ba doon na jóg guddi ci yow. ah man de gisum ah man de xaw man de maa ngi jëflante ak doomu aadama yi ñu baax nag téye réew mi baax seetlu jullite di def lu baax. yow seet yi nga mas a seet ba wax ci lu extraordinaire ba nga ci gën a fàttaliku boo xam ne que bii dafa doon saaru miracle ci yow. chii sëñ bi. damaa maîtriser seet saay su ma xëyee maa ngi seet. mën ngaa wax lu nekk sama poche wala am àggul foofu. nañ seet. ñaata nekk sama ñu seet. waaw bisimilah. <laughs> ah du ko seet nag ci télé bi. Mm-hmm. mais bu paree ma seetal la. ah wax ñaata la. waaw. sa seet dina tudd tur. waaw. Mm-hmm. comme par exemple ñun i bagages ñuy wër xamatul fan ak ñii ñu sàcc damay tudd tur te yàgg naa kaa def ñi may seetaan ñi ngi may gis du benn du ñaar ma tudd tur. waaw doo joxe sa kër jàmbur. ñëw nag moo tax dama ne la. ragaluma loolu pour ma ne la diw. si biir ah. kër gi. Ah. loolu moo am. bu kooku weddee. ma def sama mënin mu leer. mu leer waaw nga defal ko mandarga. waaw ma def ko dara dal ko mu leer amul weddi mais nga bëgg ma wax la tuur taxul ma wax la tuur nga wax ma tuur taxul ma baax nangu la tuur bi nga ma wax. Hmm. mais su ma seetee gis ne lii moo ne. dama hmm. koy def. am na ñooñu bu ñu réerlee dara am na seetkat yoo xam dañ naan bu matee tant de jours mënatuma ci dara ñii bu yàggee mënatuma dara ñii yow sa ñaata fan lay weesu mënatoo ci dara. ah mu <laughs> dee seet la rek saa yi ba ma woowee ma seetal la. lu mu sàcc ak lu réer bu dee waaw waaw ñëpp ak may dégg saay booba woowee ma seetal la. xale bu réer mën nga ci dara kon. waaw. Hmm. mën naa ci dara. ñu jàmm yàlla ci benn biir am na benn xale boo xam ne que ak presque xaw ma dix mois ngi nii mu réer sant Mbàkke àddina bi yëpp di ko wër kenn xamul ci lu mu nekk kooku mbokk yi bu ñëwee wala mën nga volonté wu feeñal ko wax fu mu nekk. dañ ñëw. ah waaw. dee mi ngi dund rek. Mourtada déet yow mi seet nag dama ne moo tax ma ne la bu dee mi ngi dund rek da hmm. ñëw ta bu fekkee nag dama cee nar a dugal sama loxo bi dinaa ko xool ndax mi ngi dund hmm. incha allah incha kon daal bépp uh, ku réer muy magum jëmm mu réer uh, ku koy laajte soxna xayta nee na loolu dañ ci àpp jour wala déggoo ma la wax hmm. boo ci amee kay dañ ñëw rek ku réer rek ku réer na ñëw ñi feebar bëgg a faju nan ñëw. Mm-hmm. ñi ñu liggéey am problème mu tànk nan ñëw. Mm-hmm. ñi feebar daal na ñëw. ma faj leen ban wér péng. wér péng nekk ci leneen. yow léegi euh, wàllum seet fi ci toll comme da ngay wax ak setkat yi nii setkat yi ngay dànkaafu naan doo seetandoo ak ñoom yu Sénégal yi la wala yi nekk ci àddina bi yëpp ngay waxal. képp kuy seet laay waxal. ci àddina bi. seet laa wa seet. seet moom jàpp nga ne amul ko la ci man ah man de xam nga nag nag du ma <laughs> nettali gént jàmbur moom ñeme yàlla la mm. mais man moom man sekk man waaw man loolu su ma su bu la neexee bul ma laaj dama nga laaj ay nit te seet fu neex ci xool dama nga laaj loolu dama ko def effet de seet loolu naturel la ci man naturel seet da nga ko judd wala daal billaay loolu naturel la ci man seet lu ma la ci wax dëgg la te samay sarax boo ko defee nekk ci jàmm man damay seet a ñoo mënul fay ñaan ñoo mënu fay pour ma liggéey leen ci wàllum ñaan mm-hmm. seetal leen diggal leen sarax yi baax ñu gis ko man sama sarax du fanaan sa foofu laa bëgg a ñëw seetkat yi bari na nag waaye mënuñu sarax ah waaw wax nag am na ñooñu euh, yéen ñi seetaan dama bëgg ngeen di yow parfois am na sëriñ soo xam ne que parfois dañ lay wax sarax bu ne laa sarax bu nu waxee li lay wax ci sarax ba pare day mel ne laaj ñu la dara mais tamit mag du sëgg fu dara nekkul côté boobu bu naxante sëriñ si ngir yàlla ku ci laajati nit saraxam defal ko sarax bi rand bu ko defarul mu toog di xoole nga encaissé day metti duy say frigo mu neex <laughs> ngay metti loolu baaxul am na sëriñ si tamit benn technique boo xam ne tamit dafa koy seetlu parfois bu ñu bëggee nga sant ko sa wax lay sarax tem nga sant ko sa mbokk ñu defal la ko dañ koy compliquer ba da naan defal ma ko rek a fi sës <laughs> kon man dama bëgg ku ci wax leen nga jiital ci ragal yàlla gis nga doomu aadama boo defal mu gis gañe nga confiance am ak famille yëpp loolu kooku lu mu la deful da ko amul am na nag ay wor ay benn benn la mais li ëpp solo daal nit ki bu ko def tëggu sémmiñ ñax benn yoon naqari benn yoon loolu baaxul boo gisee benn sëriñ gën a siiw ba pare gën a dellu ginnaaw mooy ñi lay ñam bu la ñamee xam ne li ngay saf des na da ngay ne nag sa dund metti ngay seeti beneen métier te nit ki li nga mën war nga ci dund ba dee foofu laa bëgg nga ñëwoon. man dinaa ñëw foofu ngay wax gi nga sarax dafa am importance mm-hmm. man mënuma concevoir man ma lay seetal waaw am nga ñëw nag am na ñoo xam toog nii pétaaw di leen wax rek da leen neex da leen mais man ku ma xam xam nga ni man dama lay seetal boo dee boo deful sarax boo ñëwaatee waxaat la sarax yi ah, waaw dama koy xam mm. man li ma lay seetal dafa neex rek nga di ko dégg nii mm-hmm. mais nga def sarax yi ngay gis sëriñ bu ci digal nit sarax te defu ko du gis la nga ko wax ndax baat buñ la wax am na sarax te boo ko deful doo ko gis donc bu la nee lii daal tëju lii sarax bii mooy saraxam boo ko deful du jàppandi. du jàppandi parce que nag da xëy di saraxe nag moom ku ne rek war na la waaye dafa am lu ne rek looy yóotu te daa am lu ko war a sotti. sarax moom boo seetloo te doo def sarax jaru ngay seetlu. Mm. sëriñ bu ci seetal ni defaroo ko say sarax. Mm. du gis la ko wax. Mm. kon nag diggante client ak sëriñ nag confiance dox foofu. waaw sëriñ bi sérieux ba bu ñu la joxee nga la defal ma defal li war. booy laaj tamit nga ne ko lii laay fayeeku parce que tamit bëgg a wan nit ki ne ko fayeeku ma dara mais diisal saraxe ba ëpp na fayeeku tamit mooy loolu quoi loolu moom day ëpp daal comme ci man doon la teg ko ci yoon parce que côté boobu confiance parce que nit ki bu la wanee ne wóoluma day ñaaw boo ko wanee tamit taluma la day ñaaw kon na ko ku ne teg ci yoon daal léegi lan moo baax loo xam ne ku xëy rek saraxe ko sant mu laaj la ah hmm. mënuma ko jugel kenn hmm. ay daal ku ñëw seetlu dinaa la wax say sarax say sarax dégg ngeen ko euh, am na ñuy tere ay ray ak xeet googu yooyu tamit loo ci wax. waaw dafa am ku dafa am ñoo xam ne ñoo war a ray. Hmm. am ñoo xam ne waruñu ray. am na ñoo xam ne nag nekk na nit yoo xam ne ay àndandoo yoo xam ne seen i àndandoo maam maam la waruñu tuur deret fenn. waruñu tuur deret fenn moo tax man xam nga am na yoo xam ne doo ci prononcé te gisoo boroom. mais am na ñu war a rey am na ñu warul rey. ñu warul ko kon ku bëgg a xam sarax gént nag dañ ci doon gént. ñi nga xam dañuy gént ay xaj di leen daq ay gaynde di leen dàq ñiy gént rêve gu yaakaar na ci biir gént gi bu ñu yeewoo sax mer ndax fan doon gént gént ga neexoon na lool ñu xëy rek affaire yi mooy loolu quoi. <laughs> du ci abusé. Mm. waaye am na yu ma ci xam. te soo ma ko laajee ma xam ko dama lay wax. bari na clients yi bari dañuy xëy ne ma xayta gént naa lii ak lii. ma am yu ma ci xam wax la. Mm. bu fekkee ne gént bi dafa méngoog sarax bu mu war a àndal. Mm. dama la koy wax te du ñëpp laa koy defal nag. ñi nga xam ne dañ ma am miin. seen lépp dañ ma ko dénk ginnaaw yàlla. Mm. maa leen di faj maa leen di dama leen di sampal ñooñu lu ñu gént bu ñu xëyee woo ma wax leen ci lu leer. dama leen sampal lu ku leen liggéey du jàpp. Ah, da leen samp daal. waaw ku leen liggéey du jàpp. parce que leen naa leen ko waxal de ñooñu foo ko fi dégg nee du faale ma kenn mënoo la ma dara te du ma takk du ma naan. Mm-hmm. kooku mm-hmm. indi turam ci xayta. indi turam ci du takk téere. Ah. du sangu. du sangu waaye boo ko liggéey doo ko jàpp. boo ko doo ko jàpp. kenn takkatu gisoo ni naturel la léegi. gis yi di ñuul benn jour ñëw naa cité Mixa. di génn am na benn guy gu nekk foofu. bu duggee di nga ko gis. digg bëccëg 14 heures ma fekk ma saay ku gaare oto bu rafet ànd ak jigéen xam naa am soqalaandal am na gars xam ne ko lu leen wax dina ko def mi ngi daaj ci guy gi ma ne ah lii de mooy Afrique moom. Ah. ma ne ah bii lay ku jógul sa bopp di tubaab tubaab la ba sax nit ñi capable nan sañ nan def na xam naa moom ba mu gëñee gëmee sëriñ yàggul moo tax <laughs> di daaj ci guy gi jigéen mel na war a mel toog leen foofu ku fi tubaab tubaab lu ba sànko yaa ko def sa bopp jóg leen seen bopp ñu soxor ñaa fi ñu iñaan ñaa chaque jour nga gis ku manoon dara mënatu ko ku amoon dara amatu ko koo dàq dara mu ci amuloo ci amul lu mu ci mën nan bàyyi tamit lenn nit góor-góorlu ba taxawal dara ñu ne ak a baax sëriñ jigéen di góor-góorlu ba am dara ñu ne day jaay boppam góor góor-góorlu ba am dara ñu ne borom ñaari tur yàq der gi nag nga ay bun la yàqee sa der ba mu tur la la dara côté boobu la ni ñëw yàq der ci saa yi nan gëm ne mérite am na kuy jàngi muy bag ak BFEM ak yépp ñaan loolu mais balaa ñaan lu jàngil teg ko ci yoon daal moo ëpp solo lépp léegi wàllum concours nag bag BFEM ENAM concours la loo ci mën. ñu ngi ci de. Hmm. bu baax a baax te ñu ngi ciy jàppale nit ñi te ñu ngi ciy gis résultat. résultat bu wér. ku ay mbiram nar a sotti daal yal nañu jàkkaarloo. jàkkaarloo ndax xam naa ne tiituma kenn kenn ku ñëw jàkkaarloo man bis ma soxlaam. bis la soxla. bu nekk bitim réew nag di mbëkkanteeg police yi. sonn bëgg tamit li ngay jaay policier yi du man ci yow dara nga am jàmm xel googu. maa ngi ciy dimbali ñu bari foofu de. Mm-hmm. waaw kenn du nangu seen bagage. ah yàgg nañ ko dimbali nit ñi de. Mm-hmm. waaw. dañuy jékki-jékki policier day jub leen gis faneen wala nu mu demee. l'essentiel daal ñi ngi dimbali ñoo xam ni nekkeewu nekkuñu si lu légal comme légal mooy seen mbir seen i këyit sotteegul wala bëgg nañ am lu ñu yónnee seen i njaboot. te fu ñu taxaw assuré ñi ngi leen di jàppale bu baax a baax baax a baax a baax te ñi ngi am mbégte. ñu ngi dimbali seen i waajur. ñu ngi dimbali seen i waajur. te ngi may dégg it. te ñu ngi lay dégg it léegi nag euh, soxna Xayta Seck ñi fi nekk nag ci biir dëkk bi euh, ñi nga xam na que dem dem bitim réew jaral na leen tay la seen capital yépp dem am na ñooñu kon dégg na day yóbbuwaate wala nangam luy demaate di leen jaral ñu dem ku bëgg a nekk fii nag bëgg a dem bitim réew bu pare loo ci man pour mu demee kenn du ko dàq. ah ñu ngi ciy dimbali ba tey nit ñi l'essentiel daal ñi bëgg a tukki ñëpp seen i mbir dëgër. kii la ñuy jox bi mooy kan. di mooy Ami Guèye. soxna Ami <laughs> xool bi. yaa ngi jox ataay bi bisimilah. <laughs> waaw instant bi moom. nga. jàmm waaw jàmm hmm? a dem nag léegi nu muy def balaa muy. dem nga la xoolal la say mbir. Mm. defal digale sarax yi baax defal la ñaan baax nga dem yegg ak jàmm. Mm-hmm. te tekk si jàmm ñibbi si waat. léegi daal comme ku mën di doon yow jàpp nga ne ku ñëw ci yow moom bu soobee yàlla soxla visa moom day am. incha allah bu neexee yàlla. ci am bu neexee yàlla. waaw mosoo am ku dem ñëwaat mer mer ndax lan bëggul. ñun clients yi ñuy jëflanteel ñëpp nag dañuy concentré wu seen i mbir. Mm-hmm. ah di nga gis nit tamit léeg nga ne ko ah tukki bi moom jëru nga ci sonn baaxul. xam léeg-léeg am ñu dëgër bopp de. Ah, xanaa da nga demaat feneen waaye man moom boo ñëwee ma ne la baaxul. Ah. boo ko weddee itamit baaxul. Hmm. parce que loolu laa gis du wax kenn man lu ma gisul du ma jëfal kenn lu ma mënu it. wàcc hmm. abonné leen ci Tektal TV Tektal TV Sénégal T E K L espace TV T E K T A L. bu def espace da nga def TV bu pare def espace Sénégal <laughs> ah Tektal TV Sénégal Tektal TV simple ci YouTube bi ñu ngi koy toj foofu la émission yi yëngal bés bu ruus bi bés bés kolas bi am émission yëpp abonné bi nag amul fay dara domaine bi moom kenn yabuñu ci bu baax a baax léegi nag ki nekk foofu tamit am problème mu kayit ak xat-xat yooyu noonu kooku nag kayit yi nga xam ne que tamit déposé bi parfois ay at loolooy seen problème bëgg na ñëw Sénégal mu tëleen. waaw loolu dañ ci dimbali parce que am na ñoo ni. seen mbir a dëgër am na ñoo xam dañ leen kaa def. dañ leen ko def bu mu ci doon rek am nañ garabam. am ngeen garabam am na ñooñu dañoo dem teel a mbir yi teel dox mais après mu jékki-jékki yàquwaat. cat da koy def. cat yow da nga koy formaté mu jeex benn yoon dootul ñëwaat wala. ah nga nag am am am moom fekk moo ngi yokk rek léegi cat di bari. mais am na ay garab yu baax ci mbirum cat ay muslaay cat ak làmmiñ. cat ak làmmiñ cat moom ñëpp ñëpp lañuy ñuy catu. Hmm. mais am nañ ci ay sax ba xam du la yàq dafa cat moom baaxul day yàq cat moom baaxul jërëjëf euh, soxna Xayta sekk ñu ñëwaat nag ci bi nga xam ne ko soxal na ñiy seetaan bu baax a baax muy wàllum noob noob nag buñ koy wax mooy jékku am na góor ñoo xam ne que dafa ëpp dafa ëpp nag am na jigéen ñoo xam ne dañuy jàpp benn waay lekk ko ba mu set wicc ñu bàyyi fële am na góor ñoo xam ne que dañuy jàpp benn jigéen lekk ba mu set wicc bàyyi fële léegi daanaka mbëggeelu indo yi bareetul mbëggeel lii am daanaka naxante ci bari te naxante bi nag dafay indi problème boo xam ne que daanaka góor bu ne mi ngi bëgg jigéen bu la ëppale jigéen bu ne bëgg góor bu la ëppale naxante bi am xeet boobu ku bëgg yow tubaab bam ne ngod walla yow ki nga ki nga bëgganteel mu teg fële caaxaan yi takk nopp de dañ koy def mën nañ ko lool ñaata fan lay jàpp nopp kay bu jàpp na ah bu jàppagul la bu jàppagul jàpp nopp nopp kay da ngay def ku xam nopp laa nopp kay moom defar mu jàpp la tudd mhm. dañ na noob. yow li koy defee kànnaar bëgg xam. noob moo bari façon. Mhm. noob daa bari fason noob daa am noob yu góor am noob yu jigéen. Mhm. waaw ne léegi dama ñëw ci noobu jigéen jigéen bi bëggoon noob góor bu góor bi takk boobu noo koy def. daa bari façon ba tey wax naa la ko. ah ci mus neewoon naa daa am noob yoo xam ni noobu xale la. Mhm. am noob yoo xam noobu noobu mag la. li am noobu xale ak mag day am tamit. waaw parce que am na mag yu bëgg xale am <laughs> yu bëgg mag. non non loolu olof laa la laajte dafa am noobu xale am noobu mag. déggoo li ma wax ba tey. Hmm. dafa am noobu xale am noobu mag. ma a xam bi kànnaar du kànnaar noob xam nga noob noob noob. Hmm. moom ku ñu xësal noob rek noob nañ la. Hmm, xel mi moom rek lay nekk. waaw mooy noob léegi am na ñi nga xam ne nag ay xale lañ daa am nu leen joxe seen façon noob am na ñoo xam ne bëgg nañoo noob nit ki te duñu te ay xale xale bu ndaw lañ am na beneen façon bu ñu la koy joxee ba nopp bi jàpp. kon daal am na góor ñu topp jigéen dum neen am na jigéen ñu topp góor dum neen. góor ñi dañuy noobaate jigéen ñi dañuy noobaate. am na ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi nopp nit loo wax mu bëgg loo wax yow loolu la wax loo bëgg bëgg donte bëggu la sax mais loo wax loolu lay def. ah te loolu yow da def loolu ëpp. ah dama koy def de. Ah waaw yow dama koy def yaa ma ko laaj dama koy def damay nopp góor bu bëgg a yeew jigéen ba mu ne ngor da koy def jigéen bëgg a yeew góor ba koy def waaw waaw ku bëgg a mucc ci ñu doy nopp mu jàpp nag loo ci man am naa gàllaaj boo xam ne bu ko joxee kenn du la ba jàpp la hmm? waaw kenn du ci mën dara déedéet loolu muy doon loolu ñu naan gàllaaj lay doon gàllaaj lay doon bu réeree du réer hmm. <laughs> non Tektal soxna na bu baax baax léegi nopp tubaab nag am na ñooñu moom tubaab yi ñu yor bu leen noobee nopp bi jàpp mooy tekki nañ seen famille tekki. bari na ñu ma ko defaral de. Hmm. torop na ñoo xam ni moom mi ngi fi ànd ak mbégte bu bari te tubaab yi ko jox. tubaab yi ko jox waaw. ah kon daal dëddale nag di ko def dëddale. waaw parce que am na ñooñu dañuy seen euh, am na ku ma doon mas jàmbat boo xam ne que ab ñag moo topp jabar ji di ko indi problème te ñag ba am na koo xam ne que ab ñag moo topp jëkkër ji mbokk benn fubalkat la bu doon buy fubal Sénégal sax euh, bàyyeegul quoi mais dañ ko jël woon ci coupe d'Afrique te ñi tax ñu qualifié tamit ci la bokk ci coupe du monde beeg yépp la mbokk ba mais bi mu demee noonu moom ñàkk na sëyam temps yi sëyiwaat na sax mais jooy na sax sama kanam ndeysaan ci téléphone bi quoi jamono Skype nag laa la ba léegi de <laughs> boobu muy jooy nii léegi amaan na borom kër mais nee na am ñàkk moo ko indil problème te ñàkk ba dafa gëm xam bu ñuul indi mbir ba nangu na borom këram ci neen yu mel noonu loo ci man ko. mën naa ci dara. Hmm. yow ak neen nga wala doom neen nii may xoolee nii ak neen la laa bëgg xam ma xam lu xool bi nii ah man maa ngi doon rafet ah. ku man na ma ñaanal waaye ñaanal leen ma de barke rasulaay xaw ma dañ may jàpp. dëgg dafa am de ah xaw ma fu ma dugal daal maa ngi am de ah bu baax. parce que am na ñoo xam ne que seen papa yor na xaalis lool jubóowu noog moom ñu ne dëddale am na ñooñu seen yaay yor xaalis jubóowu ñu ne dëddale ñii patron bi kii ñu ne dëddale Afrique daal métti na ko mais yéen li ñu fi wax yëpp dafa am te nit ñi ñoo koy def. Mhm. dafa am. jeex na ci ñëw nga réglé ko. Ah, damay dindi dëddale. Mhm. damay dëddale mais ça dépend nag ak dëddale bi may def lu ko waral. lu ko waral ndax mën ngaa ñëw fekk léegi ñaari nit yu bëgg bëggante te yàlla rek tax. nga mhm. jóg pur yàq. am na ñaar ñoo xam ne ñoo bëggante nga ne da leen dëddale. Mm. man ñaari côté dama koy def. am na ñooñu mën nañu ñëw tamit fekk euh, jëkkëru jàmbur ñu ñëw ci yow jiitu la fi. waaw moo tax ma ne dama def dëddale. Ah. xam nga wax naa dama ne la tey mun naa am sama client. Mm-hmm. bu nekk ak jëkkëram nekk si jàmm nekk salaam. Mm-hmm. jëkkëram bëgg ci leneen. Mm-hmm. bu mu ñëwee sant ma dëddale dama koy def. mais dama laa tamit dina am di nga seen koo ne day fekk ku nekk ci sëyam. di sëy moom mu doon ki nga xam na que lewagul mu ñëw ci jiitu la fi. ne la kii damaa bëgg mu bàyyi sama borom kër naa fekk moom dara lewagul boo tëddalee ba pare bu am boobu moom yor nga sa xam-xame li ma def nee naa la lu normal rek laay def. Ah, xam nga liggéey boo gis nag moom balaa ngay liggéey lu ne da ngay seet. waaw te boo seetee rek di nga xam li ci nekk. waa li ci nekk na su ma ko xoolee xam ne lu normal la. Hmm. dinaa ko def. boo ko deful danga ko. ndax ah, man boo amul jëkkër doo ma ñëw dëddalee ki nga bëgg ak jabaram dama ko def. Hmm. dégg ko kon. léegi ku bëgg nag ñu dëddale la koo xam ne que njabootam dañ ko të toppi tubaab yenn yi di naan sàngara di tux cigarette di tux yàmba di tux pon ànd ak di def lu bari lu ni tere njabootam jëm ci sànku di sànku te fekk Europe daanaka léeg-léeg euh, règlement yi day xaw a wute daal extérieur en manière général nga xam nag que yenn sañ-sañ yi mën nga ko bañ am ci sa njaboot te boo bàyyee ñu gën a yàqu boo naxtaanee mu gën a metti boo tàngalee yaa ko yëg kooku loo ko mën pour dëddale kooku lu bon ak njabootam. chaque jour ma gis ko am na fii am na bitim réew surtout Sénégal bii am na fi. Hmm. ay magum jëm damay leen ni sax yërëm nekk ay magum jëmm yéeg ba fii rek. Hmm. uniquement pour ma jàppale loolu seen i njaboot te dafa bari fii. am na fii dañuy am ay magum jëm am seen doom topp koo xam ne sax seen i waajur bëgg parce que seen doom mi ngi sànku. ñoo fi nekk magum jëmm ma dimbal leen ci. Hmm. loolu du benn du ñaar du ñett maa ngi koy gis. am na ñoo xam ne seen doom dañuy nekk ci bon ñu sant ma ma defal leen ñu nekk ci yoon bu baax. di leen wax daal kon ay xeetu tux tux doo tux ba euh, bàyyi maas fan la jël xaalisam jox la doo tux ba jigéen bu la bëggul bëgg la kon euh, ay tux ak yooyu dem ba jege buntu génn société bi dara jaru ko ay xeetu dawali moto yu jaarul yoon yi tàngal dëkk bi nga xam koo rom mooy xool foo war a daanu loolu tamit du tax jigéen bu la bëggul bëgg la ci du tax tamit kenn fan la jox la ci xaalisam da ngay def romb ñu ne waaye saa ay gérée la baatu gérée la rek baatu gérée la nag mooy loolu njëriñ li bëriwul nga sànq sa bopp nit ñi ne ni moytu bu baax tey def loo xam na ka jar na ko ñi nga doon dégg ñu naan tàppet yëpp ñu fi géré yi nga doon dégg yu bari fàttu ji nan ak ah baatu géré moom njariñ bokku nit ki day moytu tey def jàmm soxna Xadi Sekk ma ñëw nag ci bayra bu saf sapp nag ku bëgg bayra bu saf sapp lu mu mu jar lu mu dugg mu dox bayra mi ngi fi de am na looy laaloo am na cuuraay booy taal bayra yu baax yu saf sapp yu saf sapp sax bayra yu baax ma ngi fi. ñu ne ci place. Mhm. ñu bëgg ñu tudd leen. Mhm. bayra yu safa ngi fi daal nañ ñëw. kon soxna Xayta Seck nee na. ak ñiy jaay ñiy jaay bëgg a jaral borom parking yi ak yëpp soxna Xayta sekk nee na kon bayra bu saf sapp ku ñëw bëgg ko léegi nag ma ñëw ci Effenberg yi ci dëkk bi Effenberg Effenberg nag ku koy fàttaliku rek boo xoolee benn joueur la bu nekk Allemagne doon football Bayern Effenberg yi ak Götze yi Götze moom ay 27 28 côté yooyu la toll quoi. mais jël na coupe du monde dugal na final coupe du monde def na li muy def pare na mais Evenberg mag la maanaam ñi nga xam ne que ay mag lan commencé jël as borom kër tëlin ak ñi nga xam ne que dun ay mag mais jàpp nañ seen bopp xale temps bi dem rek ñuy toog jàpp na xale temps bi dem ban àgg ci ñaan la pour am borom kër xeet boobu loo ci man bu ñu ñëwee ma jàppale leen ci bu baax ñu am borom kër. ñu am borom kër. incha allah borom kër bi ñu bëgg wala. bu ñu <laughs> borom kër la bëgg kay bu ñëwee ñaanal ko ci ki nga bëgg dañ lay ñaanal bu gënee ci yow. Mm-hmm. am na ñoo xam sax dañuy bëgg gënu ci ñoom sax ñu ne moom lañ bëgg. dan am na ñooñu moom wax dëgg yàlla yoruñu xolu bu mbëggeel moom xolu jikkoo kii lan yor quoi nu mu tuddati. l'essentiel daal ñaar ñu bëggante bu fi ñëwee ñu jàppale leen bu baax a baax a baax. ñu leen waaw jigéen bu fi ñëw tamit xool ki mu bëgg. Mm. ñu jàppale ko góor bi fi ñëw loolu defal nañ ko ñu def nañ loolu ba tàyyi. Mm-hmm. ba tàyyi di ngeen ko soxna xayta sek xale yu jigéen yi amul jëkkër dañ ñoo ma ñaanalee ñu am jëkkër xale yu góor yi bëgg a am soxna ni ñoo ma ñaanalee ñu am soxna ku ci am faru rab nga ñoo ma fajal la ku ci góor bu ci am coro rab nga ñoo fajal la mu bàyyi ñëw fajal la ko barke rasulullah am na jigéen ñooñu tam bëgg ngun am borom kër de mais bëgg nañ bàyyi yooyu léegi jigéen ñi ñëpp a bëgg borom kër soxna xayta kon daal Effenberg yi daal mën nga éliminer yépp ci dëkk bi incha allah xam ne que tamit kër ga kilim kër ga oto bi buñu wàccee amuñu fu ñu fréquenté Euh, liggéey ñëw wàcc yor seenu xaalis seen biir kër ab xaj nekk fa ñu tëj ko wutub gardien kenn ñemewu leen ñoo ñoo noo leen di ñaanale bu ñu am borom kër. ah bu ñu ñëwee ma ñaanal leen de ñam borom kër. ñam borom kër incha allah. incha allah jërëjëf soxna Xayta Seck ñu nekk ci tegtal bu neex a neex beneen nag laay ñëw boo xam ne ko mooy mi mitan tegtal mitan tegtal nga xam ne ko kaañ baa fa nekk xuma ngaañ bi euh, mooy wàllum ngóor ku mënatul dara kuy gaaw a yegg ku faible ku nekk mag. ko ku bu mu ci ak ku ko judduwaale ak kum dab ak kuy masturbe yow di utiliser saabu bi xet boobu yëpp wàllum tële loo ci mën. ah boo ko judduwaale moom dama ko faj. di ko judduwaale. ku ko judduwaale <laughs> dama ko faj waaw. <laughs> ko dee <laughs> ah. ku ko judduwaale kun koy faj. waaw ba mu wér péng. waaw ah. mu dal léegi bu ñëwee ma defar ko léegi mu wér péng. mu wér péng. ki utilise saabu bi ba mu dal ko nag. bu dee rab moo ko teg moom dinañ ko ci jàppale. parce que am hmm. na am yooyu moom du tayeef xanaa. Hmm. du tayeef de lépp ci dëkk bi ko saabu bi ku ko utiliser nee na boo ñëwee mu éliminer la ba dootul seq ak loolu moom daal. am na nag ñu bari ñu koy dund te amuñu sax ah. fuñ ko waxee. Hmm. mais dimbali nañ ci ñu bari. waaw nga xam na que tamit ci fu ñu dugg fa lu nañu dugg ca euh, ba dugg fu mu warut a dugg ba ndogal fekk leen fa. ndogal comme ban ndogal. ndogal maanaam dugg nañ ci loo xam ne que dugg ci jigéen bu miine rek wala yooyu <laughs> ba jaay ba am problème. problème ban. problème mu góor fekk lañ ci. ah léegi góor ma ne nee naa problème ngóor dama koy faj. bu mu mën a doon. ba mu des boo ko judduwaalewul. ku ko judduwaalewul rek ku ko judduwaalewul. waaw buñ la ko tegee boo ñëwee ma dindi ko. ba mu denc chaque ñi ñu ngi koy. léegi ku nekk mag tamit yoon bee waxoon nañ ci. ku nekk mag nga nekk mag léegi. bu dee nag da ngaa sant ni moom da ngaa tële. Mm. boo ñëwee ma jàppale la ci bu baax a baax. ku nekk mag waaw. mais comme am dàqatoo kenn daal. bu fekkee laa moom dafa sant ni moom daf ko bëgg. non non bu ñëwee ma jàppale ko. waaw jeex na kon kon éliminé wul kenn ku nekk mag ak yëpp na ñëw nee na incha allah di nga lu kawe njort bu baax a baax kon mi temps tegtal euh, ana butéel bu gàtt boo nekk nii. barke rasul <laughs> butéel bu gàtt bii mooy dox ci wàllu ngóore daal bii moom nit ki nu mu bu ñëwee dinaa ko ko expliqué mu leer naññ. <laughs> Ah, waaw léegi ma ci beneen butéel bi yi mooy cangat yi cangat bi nu demee bu nga reeti hmm. lii daal yi muy def bari na mi ngi nii lépp a ngi fi. Hmm. beneen butéel bii bii tamit bii mel na lu ñuul tuuti. bayre beeg nopp beeg yëpp a ngi fi. yëpp a ngi fi jërëjëf euh, soxna Xayta Seck dégg ngeen li mu wax bu baax a baax ñëw na ci domaine yu bëri léegi ku paralysé nag ban ko ci pousse pousse loo ci mën. bu dee feebar olof la. bu dee feebar olof la. am nañ ci ay saafara yu baax a baax a baax. bu baax a baax a baax. lu wàllu lu làmboog mbirum olof daal. waaw ci ngay dox. ci laay dox. barke yaa sëtu kan. sëtu <laughs> waa sunu mën a jeng borom boulevard bi. <laughs> borom boulevard bi ca Mbaaw. ca Grand Mbaaw soxna Xayta Seck ñu ñëwaat tamit euh, ci beneen mbir boo xam ne que dañ la fi mos doon jël émission nga yëngal ci wax ci lu doy waar ba defe naa li gën di rang rang sa kër. li wax cité bi kalmootul loolu bokk na ci mooy wujj wujj bi noo ci def yaa ngi ci gën a taqee fa nga nekkoon nga nekk wala ngaa gën a saf ngi ci bu baax baax a baax a baax kon daal ku bañ wujj ku bañ wujj daal yow moom doo wujjee dex na déedéet wala boog lay neex ah sans ah, dépense ko ki ma nekk bu ñemee rek wala ki nga ki ñeme ñëw <laughs> ki ñeme ñëw ah, bu ñëwee daal moom da jàpp ne am na signature contrat bu ah, mag dina demaat d'accord li nga du danse waa damay dem lu ay nit loolu dara. kon daal léegi nit ñi daal bu baax a baax a baax. ku hmm. bëggul am wujju rek na ñëw. nee na ku bëggul am wujju nga ñëw. léegi ku bëgg téye sa borom kër tamit mu nekk ne la yow rek. ne la yow rek ñëw ñi ngi ay secret yu baree baree bari nga nekk ci parce que néegu sëy yi daal léegi dafa bari problème. parce que problème bi tamit. problème bi dafa bari. léegi li ci xaw a metti mooy ñaari jigéen dañuy wujjee kenn ki ignoré ay mbirum sëriñ yëpp yoonam nekku ci ki ko tal nag dem indil ko jafe-jafe ba mu de bis bu demee ba xam ne nag lii lii la fekk retard na loolu day ko ah, quoi kooku comme sëyam neexut mhm. ki la gën a aisé daal gën laa ne ci jàmm fu mu toll waxuñu nag lépp gàllaaj la waaw mais day mottali day mottali day mottali de Afrique la nekk day mottali bu baax a baax a baax ku bëgg daal sa jëkkër sa borom kër gën laa bëgg mhm. ngeen gën a nekk ci jàmm ñëwal fii baax mi ngi fi baax mi ngi fi lu baax lu baax baax <laughs> soxna Xayta Seck dégg ngeen ko nee daal fii boo fi ñëwee di nga am lu baax ñi nga xam ne que dañuy déposé liggéey fu mu xam ci àddina bi buñ déposé bañ nañ ko ba leen déposé demande ba bu seetloo tuuti boo fa jaaraatee di nga gis ne vigile yi moom la di jàppe baraade attaay bi loolu loo ci mën bu dee daal ñàkk wërsëg la hmm. am nañ ci ay garab yu baax hmm. bu dee lu la def la nag am nañ hmm. ci garab bu dee loo war a fajit la dañ koy faj parce que ñaar ñett moo fi nekk rab liggéey ñàkk wërsëg parce que li ma wax oustaz Assane Diouf ca Walfadjri <laughs> di ko wax ne ko Sénégal moom looy lijjanti ba ne dinaa la woo bay ba nga seeti ba ne la. woo ma sax amul problème mais dinaa la woo boo koy def ñu fàtte la nga yëglu nag soof moom daal la fa xaw a métti daal kon ku bëgg liggéey daal incha ku bëgg a nekk ci place nag dëgër fa boobu itam da nga koy samp. boo ñëwee ñu sampal la defal la yu baax. Hmm. lu baax lu ñu fay wax kay dañ ci bokk. ñu ngi ci bokk incha allah. incha allah dégg naa am na ñooñu ci benn bërëb di liggéey nag samp fa seen bopp ba mënatul faa jóge nag affaire yi doxatul ñu nekk fa xultu di saagara te mënuñu faa jóge est-ce <laughs> samp wóor na ko ah bu fekkee kóllëre ngi dox ci diggante bi tay de hmm. doo fa dund lu metti noonu comme dama ne léeg-léeg léegi naa la bu baax ah. xam nga tey munu munu ma conserver sampal la koo sampal kay yaa ngi topp ay mbiram hmm. te fu samp am kay yokkute rek fa war a am yokkute rek fa a am jàmm léegi xeetu série yi am ci télé yi nga xam nit ñi dama ko jël bu baax a baax série yi di ëppante doole série bu fi ñëwoon noonu ne leen dama bëgg nekk ci kaw yëpp gën a neex publicité yëpp mu encaissé ko mën nga def loolu. série ñi fi ñëw de ñu ngi leen di dégg. ah am na ñu fi ñëw. ñi ñu ngi leen di dégg. ah bon. duñ def groupe de laaj leen benn bennal wala double V. ñu ngi benn bennal daal nu mu tuddati P double V ak ban. ñu ngi benn bennal de. ah M. dans ce daal ñu ngi ñëw daal. kon yu amul bayra yi des mooy loolu ko ah, danse daal ñu ngi ñëw. P E oui E P E oui E ak la la. E G E ah. dañ koy defar nag waaw waaw ah, G E. kon daal yooyu léegi ñooy sang ñuy joué ci film ba ngay sang wala trou film ba ci boppam ngay. defar mbooloo daal ñëw waaye benn benn ngi ñëw. benn benn ngi ñëw. ah ñooñu ci biir série tamit ñoom ñooy gën a fesaat ñeneen. daal benn benn ngi ñëw. duñ def group de waaye benn ku ne dina gàddu saagam ñëw. ah nuyu naa kon saa neex maa ngi lay nuyu Pa Omar Diop Pod maa ngi nuyu Marisou ak kan waa ñëpp daal ñooñu maa ngi nuyu ñëpp ay code la daal ay code la bëgguñu wax. <laughs> kuy ñëw daal <laughs> xam kuy ñëw fii daal xam na nga sa bopp. kuy ñëw daal xam nga. waaw ñaari tali ba asek naa ku fii ñëw xam nga. léegi nag ñu ñëw nag ci sport global jour buy bañ a toog baax nag. Ah. Ah. bañ toog ba nekk ci titi nee na nee nga nawetaan moom kóllëre leen boole mais équipe yu mag yi ñoom Real ay Liverpool. fii daal ku ñëw moom. waaw di nga ñàkk. ñàkk ah non maanaam nee fii ku fi ñëw du doon tokkatu ba daal. koy ku fi ñëw moom di nga ñàkk. di nga ñàkk. waaw incha allah. incha allah <laughs> kon nee ku bëgg a mucc ci banc wala dem ci club yu mag yi di toj Zamark nag mën nga ko di dugal biir. <laughs> nañu ñëw. ah ba mën nga laa yow tamit loolu ci liggéey bi la bokk de. tëj kan nag man nga ko. di football te doo dugal amul sens de. amul sens de amul moo tax dugal daal lu am solo la mais tëj kan nag ba dugg man ko. yàgg nañ ko def des fois nag ñu xajante sax seen biir naan na tëju. na tëju waaw. bari na fi de Sénégal lañ nekk. am na am na benn luñ uh, fi waxtaanee rek. am na benn joueur Sénégal boo xam ne que yaay ji daf may woo mais. joueur bi dafa amoon nga di maamu kot mais jekk na jekk fi mu nekk sax mii ci première division ba léegi daal mi ngi toj mais na nu ko daan déggee defa wàññeeku mu mel na dum nen euh, kooku bu yaay ji ñëwoon mën nga ci dara. incha allah ci kàttanu yàlla mu romb fa mu nekkoon. Hmm. waa jeex ko kon joueur buy fubal ñi nekk ci euh, lu ndaw bëgg a mag ñu nekk ci nawetaan yi yëpp mu ne ku ci ñëw di nga ci am lu kawe njort mbër yi moom nga ne xam nan la. bu baax. yaa ngi ci def bu baax a baax. promoteurs yi bu baax a baax promoteurs yi xam nañ ma. xam nañ ma <laughs> soxna Xayta léeg-léeg da ngay gis xale yuy sawlal te ko bàyyi ak ñu dem ba doon magum jëmm bàyyeegun sawlal. loolu ci dama koy faj am na ay mag yi fi ñëw sa daan sawlal. Mm-hmm. ay magum jëmm yu am borom kër di sawlal. te ruus la ko wax. déedéet feebar la. Mm-hmm. mais rab wala rab lañ koy ji. rab la. rab la waaw magum jëmm buy sawlal xale am na de. Mm. télé la. télé ku mu dal daal na nga ñëw. jarul ruus jarul ruus. jeex na ku yéex a wax na xale bu yéex a wax. ah. mënoo ci dara. fajagu moo ko. fajagu ko ah jeex na soxna Xayta Seck dégg li mu wax bu baax a baax kotu xeetu cancer. dama ko faj. doo ko faj déedéet. paralysé incha yàlla musal. Mm-hmm. yàlla incha yàlla musal. Mm-hmm. beneen feebar ba nag ba ma la waxoon boobu moom du doo ko faj. <laughs> ay kyste ngi faj daal ñu ngi faj faru rab yi ngi faj nii hmm. daal nañ ñëw rek incha allah ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla euh, kuy sëy taw am doom nag koy faj ba mu wér bu fekkee war nga am doom yow hmm. soo ñëwee ma xool ko wala hmm. sa traitement di am doom yaa koy góor gi wala ko jigéen may faj ko góor may faj parce que déjà tamit nit ñi ñi ngi jaawale néegu sëy yi léegi yëpp doom doom doom jigéen dina sëy amul doom ñu jiñ ko ku jigéen ke fekk ku góor ki ma war a faju góor ñi dañuy faju góor ñuy faju góor ñi nañuy faju am na góor ñoo xam ne ñoom ñoo mënul am doom nañuy faju ñu mm-hmm. dimbali soxna yi am na soxna yoo xam tamit ñoom mënuñu am doom te nanguwuñoo faju mm-hmm. ñaari côté yëpp kum ci dal na nga mm-hmm. ñëw ñu dimbali la am nañ ci si garab et puis tamit di wax borom ñi nekk ci kër yi di sëy ku amul doom ñu bàyyi di la gaar waala di la indili problème di la xool surtout yenn goro yu sikk yi ñu bàyyi loolu te xam ne doom mbirum yàlla la am na ñu am doom yoo xam ne jariñu leen dara am ñoomul doom yoo xam ne ñu ngi leen di defal lu ne nit nag li baax mooy fajoog ñaan ak yépp nan bàyyi di nit nekk ci mitti ñu koy dolli mitti daal loolu dafa ñaaw trop nañu rafetal lépp te xam ne àdduna moom ni ma koy waxee ku juddu di liir bi ku dee di néew bi ku la laal raxasu mbaa boog mu faxasu soxna xayta sekk mu sëñ baara waxtu benn dab looy tàggoo bu dul tàggatoo ak ku la abiyee mooy ah, kontaan naa nag ci yéen. Hmm. yéen a ngi jàpp ci liggéey bi. waxal abonné leen ci Tektal TV yéen abonné a ngi génne ñu réer parce que. Hmm. Hmm. seetkat yi dañoo bari ci réew mi. ñu mën a seet nañ seet ñu mënul seet nañ bàyyi. léegi fu mu toll fu réew mi nekk moom nekk seetkat jàpp ak sëriñ jàpp naa ne moo fi gën a dox. billahi moo fi gën a dox de ku ko mën daal na def ku mënul na bàyyi. liggéey bari na. maa ngi sant di leen sant di gërëm di nuyu di sant ñëpp di yi ñi may jot ñu comprendre ma ñu ma jot nan ko l'essentiel daal ku mm. fi ñëw sa aajo dina faju incha allah kon doo tudd tur maa ngi sant ñëpp rek damaa njaboot damaa njaboot <laughs> kon lu ñu Ami Gueye Ami Gueye bu ñaari tali boo toog ni <laughs> kii kii filmé waali yaay waali waaw yaay waali bu ndaw waali sekk di sant sama mag sama borom ko maa ngi sant ñëpp daal damaa njaboot moo tax mënuma lim. Mm. dama njaboot maa ngi sant ñëpp. Ah. di sant alaaji baara sama sëriñ sama yaakaar tey ak ëllëg. jërëjëf xar ma gaaw jóge fi parce que émission bi am na luy yëngutooti balaa mu may sonalati jëlal yoon bu mujj ci biir émission bi numéro numéro soxna Xayta Seck mu sëñ Baara 77 774 03 47 77 774 03 47 beneen bi 77 455 00. 17 77 455 00 17 soxna Xayta Seck mu sëñ euh, mu sëñ Baar moo nekkoon ci tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance nekkoon ci euh, ànd ak Baye Massamba Diop bu Derkele am saay baayam ummi kan yaayam Cheikh Abdoulaye rakkam mandawaay magam euh, Petit Sow monsieur Sow magu mami nekkoon ci ak doomu Xadi Njaay ca Mbuur Thiès fu ne lam lan la lan koy lam daj ko xarmat nekk fi soxna may Jóob ci réalisation bi euh, tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga dakk Sayer Fall Espagne Ousseynou Ly Allemagne soxnaam Amina euh, bébé euh, ak tamit Amina ak mère Fatmata Ndiaye ñu ngi ci Allemagne Dieynaba Jabaate Allemagne mami d'enfant France Penda Fall Italie Ibou Dieye Espagne tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk abonné leen ci Tektal TV simple Tektal TV Sénégal Tektal ñu gën ko yaatal xéwal dikk loraange dakk jërëjëf